asalaamaaleykum mbokk yi ñoo ngi leen di ziare bu baax a baax ñoo ngi ci dëkk bu tedd bi di Daaru Koso di dëkku maam Thierno Ibrahim Mbacke moom borom Daarul mu sañcoon ko ci ndigalul Serigne Touba yabaloon fi doomam Serigne Mahamadou Mbacke mu nekk fi ci condition yi jafe-jafe jafe dëkk bu métti dëkk bu jafe woon waaye suñ borom defal ñu tawfeex ak dégg ak ndigale waajuram jàppale ko ba liggéey bi ni mu ko bëggee woon lépp. mu amee ko ni mu ko bëggee tey ñu ngi fii ci Daaru Koso di def màggal gi ci ndigalul Serigne Mokhtar Mbacke mi nga xamante ni moo fi xalifu Serigne Mahmoudan di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool tam ànd ak wér ba yéene ji nga xamante ni yéene na ko liggéeyal Serigne Mahmoudan ci dëkkam bu tedd bi mu defe ko ni mu ko bëggee kon jumaa jooju nga xamante ni moom ngeen jàkkaar lool muy mébatum Serigne Mahmoudan si biir dëkk bi jëwrinam ju tedd jooju xamante ni moo fi njëkk a di xalifaam Serigne Mamour Mbacke moo ko fi tàmbali ci léggéey bu rafet boo xamante ni liggéey bu yéeme liggéeyal ko lislaam liggéeyal ko borom Daarul Moxti liggéeyal ko Serigne Mahmoudou Mbacke mooy jooju nga jàkka moom it ñu ngi koy ñaan suñu borom taas ñu ci barkeem te xalifa bu nga xamante ni moom la fi suñu borom bàyyi mooy Serigne Makhtar Mbacke suñu borom yàggal ko fi lool ba mu naa naa li fi naa loon ba naal ay naali boppam kon dëkk baa ngi noonu loolu mooy wane ni nit ku nekk rek nay jëfandikoo ndigal ndigal lim jëfandikoo mooy ndigalul Serigne Mahmoudan Serigne maam Thierno borom daal bi euh, Serigne Mahmoudan jëfandikoo moo waral lii lépp kon yàlla suñu borom defal dégg ak teb te taas ñu ci barkeb Serigne Mahmoudan mi nga xamante ni moom la borom daaru yabaloon fi ñu àndoon ak Tawfekh Production ci màggalu Daaru Koso wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bajenam baxa baxa xayrate a Legole, Legole, Legole, asalaamaaleykum mbokk yi ñoo ngi leen di ziare bu baax a baax ci dëkk bu tedd bii di Daarul Koso di dëkkub Serigne Mahamadou Mbacke moom borom Daarul Moxti ci bis bu bi nga xamante ni moom la ñuy defalal jëmm ju tedd jooju di Serigne Mahamadou mi nga xamante ni moom la Serigne ma borom Daarul Moxti daloon ci dëkkam bii mu fonkoon lool muy Daarul Koso kon fii ñu nekk nii mooy bërëb bi nga xamante ni fii la borom Daarul Moxti daan nekk. xalifa sëñ Mahamadan bu njëkk sëriñ Mamor nag suñu borom yokk ay leer te taas ñu ci barkeem moo ko defar nii waaye barkeelu yi nga xamante ni moom la fi borom Daaru Muxti daan jëfandikoo yëpp moom ngeen di gis nii ñu ngi ciy siyaare bu baax a baax ñu ñaan suñu borom taas ñu ci seen barke te képp koo xamante ni gis na ci rek ñu fas ci yéene li mu ci bëgg rek suñ borom defal ko ko ci ñu màggal ko ay ati ati at ñu leen sant bu baax di leen gërëm. ñoo àndoon ak euh, Tawfekh Production mu ànd ak ci màggal gi ci liggéey bu rafet bi ñoo leen sant bu baax di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. la

kaw yaak melay biiram dëppoo nañ ko diglu lu bon diglu melay kaw yaak yaa ma topp ak sa micro bi rek man dama wax ci ay micro bi ak sax déedéet déedéet man dama wax ak micro bi تعال لنا لكن تعال لنا Thank you. Vasandana, Vasandana, Vasandana. asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di ziare bu baax ñu ngi fii ci dëkk bu tedd Daaru Koso di dëkk Serigne Mahmoudan di dëkk borom Daaru Mawti di dëkk boo xamante ni ci histoire yoonu murit foo ay toll rek dégg na kan mooy Daaru Koso ñu ngi sant yàlla bu baax mi nu xel mu fekkee bis bi nga xamante ni moom la ñuy defal ci bu tedd jooju xamante ni ndigal boo fi bàyyi woon jafe-jafe yu met yoo xamante ni dëkk bi doon na ko jànkonteel te borom Daaru Muxti goroon ko ci ndigalul Serigne Touba doonoon dëkk bu mu fonk boo xamante ni bi mu ko fi yabal taarix ñu bari nettali nañ ko ndax mettiwaayu jamono ku mu fi mos indi rek mu gàntal mu indi fi jëmm ju tedd ji mu Serigne Mahmoudan mu toog fi ak metti yo ak jafe-jafe ak jëfi ndigalul waajuram ba lii lépp fekk ko ci ñoo ñaan suñu borom yàlla nañu taas ci barkeem ñu fekki bis bi ay ati ati at ñu fekkoog kenn koo xamante ni ci njabootu Serigne Mahmoudan Serigne Ousmane Mbacké di doomi Serigne Fallou Assidie di sëtub Serigne Mahmoudan ñu gën koo xam ci soxna maam bu sama waajuram mu jigéen moo moo ko jur kon sëñ bi tey ñoo ngi ñëw fii di taatat ay kàddu yoo xamante ni bokki taalibe yi dinañ ci mën a jariñoo ñu gën ñoo fàttali jàmbaar ju tedd jooju ci Serigne Mahmoudan ak ndaw yi nga xamante ni jamono léegi fi mu toll lan lañ mën a def ba jëriñu ci jëmm ju tedd joo yi nga xamante ni ku ne nee na woon ngir fekke woon mën a jamono a euh, jëfandiku ci ay kàddoom ak ay ci bis nga fàttali leen incha allah jërëjëf sëriñ ñu leen nuyu bu ñu baax yàlla bu baax moom moo ñu defal tawfeex mu fekk ñu fi bis boo xam ne waaye sa bopp nga defal ndax jëmm la woon joo xam ne ak taalibeem ak diineem léppam dafa matoon ah, borom daaru daal andi ko fi daal ko fi ci anam yu metti waaye mu sax fi wala ko fekk fekk ko fi ko fi yebal at yi bëriwul ñoo fi nekk 1940 41 jàpp 42 ba 76 bàyyi ko fi nekkoon fi nag jàng ak jàngale waaw wax nañ yoonu mu dund bare bare jaar nañ fi ba dikkee daaru moo ci jaar nañ ko bare jaar nañ fi sa xarit ak sa yow sa basante ñoo ak sa xarit ak sa Moussa Absa ba bëri mu dafa jug sa Moussa Mayek ñoo fi leen jaar sëñ maam Thiar Ndao ma naan ak sëñ Modou Makhtar ñoo fi leen jaar ci njàng sëñ Basiir waa këram fi la nekkoon sëñ Ablaaki sëñ Fàllu sëñ Isaaxa waaw xam naa li li li taxoon ñu sant ko rek mooy dafa yàlla def taw feex bu baax a baax ba tey jii dëkk bi am dëkk bi am ndax diine ji ak taalibe gi dafa yëpp dafa ma doon sëkk kon bu fekkee ñu koy fàttali ko tey des na ci lool bu baax a baax a baax ndax biñ ko fi waaye teewul mu am jom islam

kon am ndox moom xam nga ne waxaale wu waaye teewul rek moom sax di di jaam yàlla dafa liggéey nga xam ne moom bu fekkee ne ñu mën a gis ko ni mu mel nii gis jumaa ja taxaw ndox mi xel li lamp yi tàkk yaakaar naa am na ñoo xam ne ñu bu leen yeewaatu man li wax wax leen ni ko semaine dana leen jaaxal waaye nag waa liggéey waa ju wax mu mel noonu nekkoon xaritam yëpp nag sëñ Blaat xaritam loolu tudde na ko doom sëñ Blaat sëñ Murtala xaritam loolu tudde na ko doom seen laat kër bu ko seet ci tawat ji bi mu génnee jooy yëkkat la def ndax ndax ñeewoon du ko am sin ak seen laat ni mu dëgëre kon kooku euh, seen bu xaadim noonu xëy daal maa ko sodaa baax ba jaww ji baax sëñ sëñ sëñ sëñ Basiru kii day ñëwaat ma jàng nañ mu toog jàng mu wut a jàng nañ toog rek ndax yar bi nekk si yow nga def ko ci moom kon baaxoon na waaye yar bi nekkoon ci moom moo gën a yéeme dégg ñëw war naa ñëw sëñ bi daaw baal wala ko daaw baal ñëw fekk fa keroog néeg mu tëdd ndax néegu doo nga yi ci lañ ci ci lañ ko bi sëñ bi daaw baal ngeen ne da koy yéem lool ndax taalibe boobu kon nag yàlla may taas na ci barke ñu fi bàyyi wax dëgg yàlla sëñ maam moo jàmbaar ndax taxaw na ci dëkk ba dëkk bi si sëñ waxtaan ko ne xam na ne la sax mais gis nga jàngukaay bi mu fi tàmbali ngeen xam ne dëkk dëkk jàngukaay boobu kon daal dëkk bi moom mooy dëkk boo xam ne màggaluk Serigne Mahmoudan taxaw ak benn jëwrin mooy futur maire sëñ Maguette Gueye di ko ñaanal bu baax a baax di jàmbaar joo xamante ni ku jàpp ci liggéey bi daanaka dañ koy bàyyi nga xamante ni mooy borom bis bi mu fayal na ko lu mu kon sëñ Maguette ngay feeñal say kàddu ci bisu ku tedd gi nga xamante ni borom may nañu tawfeex ñu fekkee ko euh, defoon ko daaw ñu naan suñu borom may nañu fekk waat kay at yu bëree bëri te lépp liñ ci yéene lépp rek liñ ci bëgg lépp rek nga fas ko suñu borom jàppandal ñu ko ci barke borom bi waaw sëñ Maxtaar salaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu dañuy sof fi nga jeexe la rek mooy di sant yàlla suñu borom subhaana wa taala bi mu fekke la waatee bis bii di bisub sëñ Mahmoudan di bisub maam Thierno Ibrahima di bisub Serigne Touba Xaadimu Rasuul euh, dëkk bi di dëkk boo xam ne euh, danga nga daan dégg sax ci mag ñi ñu daan wax naan bu jafee bu jafee mooy koso euh, dëkk bi ñu nekk tey nekkoon dëkk boo xam ne ku xamoon démb xam ko ñëwaat fi tey da nga naan dëkk bi ma demoon du bii waaye ki sañ ci dëkk bi moom xamoon na lépp ndax xamoon na ne dëkk bi dana yegg fii te dana ko romb eh, ñuy sant yàlla bu baax di sant Serigne Touba Khadim Rasoul di sant Serigne Mahmoudan di sant Serigne Makhtar mi nga xam ne tey moo toog toogaayam tey ñaan mu yàgg lool te te te neex lool nag ndax nii mu commencé kat alhamdulilah rabbil alamin di sa di ñaanal ay rakkam ak ay doomam suñu borom yàggal leen fi te wëral leen fi bis bi nag nekk bis boo xam ne danañ ñaan fekk ko ay at yu bari ndax di sant yàlla tamit bi mu ñu ko fekkeloo ndax euh, bis bi lépp lu ci waay def da ko war a xeeb. comme fi nga daaneel rek ñu ñaan suñu borom yóbbu lu ci élection yeeg jàmm nga xamante ni candidat nga ci. ñu lay laaj sëñ Maguette lan mooy sa programme ci dëkk bi nga xamante ni mi ngi bokk ci commune bu Mbadiane ak commune bu Mbadiane bépp ci élection yi ñu jëm allah. waaw Mokhtar laaj nga ma lu ma sawar loo xam ne si ne euh, soxla naa trop lu ma ko laaj ginnaaw bu ñu nuyoo nit ñi te jaar leen euh, dañu am yéene ak programme bu mag ci euh, commune Mbadiane ndax boo xoolee commune Mbadiane ci ci arrondissement Darou Moussi boo tuddee Darou Moussi commune Mbadiane nga ciy teg. te ñu gis commune bi sooxee sooxee boo xam ne si ne war nañu am programme bu leer boo xam ne si ne ku jël mairie bi ci loolu nga war a tàmbalee ñu gis ne tey euh, boo xoolee dëkk biir Daaru Koso ñu gi rek jafe-jafe la amul yoon te ñun suñ programme da def nañ ci yoon boo xam ne si ne day jógee Daaru Muti ba Touba Belel yëg nañ ne commune Mbadiane aussi amul collège te aussi Mbadiane nekk na dëkk boo xam ne si ne ay école yu bëree bëree bëri nekk ci dëkk bi te ku ci am entrant sixième da nga jàll Darou Moussi wala nga dem Mbacké doo am foo jàngee xalaat nañ tamit ne dëkk bu mel ni commune Mbadiane ci biir siège Mbadiane poste santé bi amul ambulance ak yeneen ak yeneen ndaw ñi amuñu ay xëy war nañu créer loo xam ne si ne ci biir dëkk bi war nañu fexe ba ndaw ñi dootuñ dem Kayaar wala Ndakaaru dañuy ñëw fii ci Mbadiane pour am ay xëy xalaat nañ ay ay mini forage yoo xam ne si ne dañ ci dañ koy taxawal ci dëkk yi ba xale yi di ci mën a di ci di ci mën a mbay mbayum noor ak yeneen programme yoo xam ne si ne xëy na du fi xaj waaye ñoo ngi koy programmé te incha allah dinañ ci taxaw suñ kam kattan ndax boo xoolee fii jigéen ñi tamit ñoo fi gën a néew doole ndax jigéen ñi fii bay la ñuy def buñ paree di xooli gerte ñu leen fay ay ay ay ay pan deux ans et cetera am tax xalaat nañ ay financement yoo xam ne si ne war nañ ko dégager indi ko ci commune Mbadiane ba jigéen ñi am luñ jàpp waaw jërëjëf jërëjëf sëñ Maguette kon de yéen yi am na solo lool yàlla nañ suñu borom yàggale ñu fekke ko total ko ba programme bi dal na xel wax di yàlla képp ku koy dégg ba suñu borom jàppale la ni nga ko bëggee nga mën koo réussir ci barke borom Darou Mouhty wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. asalaamaaleykum mbokk yi comme ni ñu ko waxee ba tey ñoo ngi fii ci bis bu tedd bi di eh, màggalug Serigne Mahmoudan ñu taxaw kenn ci eh, dëkk bi koo xamante ni waajuram moom la ñuy màggalal bis bi muy Serigne Mahmoudan ñu gën koo xam ci Serigne Djily Mbacke moom Serigne Moustapha May koo xamante ni yaakaaram naa waajuram ci nin jàll ñun limal jàpp na ni fii la jaar ci ay loxom kon Serigne bi dinañ sawar nga defal ñu ay soññe ci bisub jëmm ju tedd ji ak taalibe yi leen ci mën a jëriñoo kon Mbacke bismillah. a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yéen bokki taalibe bi bokki jullit yi maa ngi sant lu bari di leen gërëm ci bis bii ngeen ñëw muy bisub Serigne Mahmoudan moom Cheikh Ibrahima doonoon koo xam si jàngalekat ak ak yare moom la fi nekkoon ñëpp ci loolu lañ ko xam amul bi lool ragal yàlla lool doon ku baax koo xam ci jikkoom ñëpp kono noonu rawatina waa Kër Sëñ Tuubaa muy sëñ Abdu Lahat sëñ Abdu Xaadir ñun ñëpp ay xaritam lañ woon ndax sax sëñ Mahmoudan am na ay jamono yoo xam daana daan ci ci Kër Sëñ Abdu Xaadir nga xam ne kon mosu fa am kër foofu amoon na fa kër sax waaye dawul dal këram kër sëñ bu Xaadir la daal te loolu lépp kóllëre ak ak taalibeem moo ko may ñoom ñëpp doomi sëñ Tuubaa dañ ko daal seeral ak taalibeem waaw loolu nga wax dëgg la sëriñ Moussa May mi nga xam ne moom sama waajur moom fi moo ko yar fi la jàngee def li mu war a def lépp ba fi la jógee sanc dëkk bii ñuy wax Arafa foofu la fa la fi la jógee dem sanc ko waaw moom daal ñu ngi sant yàlla bu baax di ñaan yàlla yokk leeram ci taas ñu ci barkem ci seen Maxtaar mi fi nekk ñu ñaan yàlla may ko wér ak kattan ba fa mu bëggee yéene dëkk bi àgg fa mu àgg fa ci barke Sëñ Tuubaa ñu fekk ko ñu ñëpp ci tal yéen ñi ngi leen sant bu baax di leen gërëm bu baax di ñu taali bi bu baax nag ci ragal yàlla ak topp ndigalu sunu borom loolu nag mooy sax ci ak jub te nangoo liggéey te jaamu yàlla asalaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf kon ñu àndoon ak Serigne Djily Mbacke mu defal nu ñaan rek. jërë ngeen yàlla na si dégg ak topp barki Sëriñ Ibra asalaamaaleykum mbokk yi ni niñ koy defee rek ñu ngi fii ci dëkk bu tedd bi Darou Koso di continuer def ziar yi kon kooku ngeen jàkkaar lool mooy Serigne Mame Thierno Mbacké moom Serigne Mame Mor Koso kooku ngeen jàkkaar lool mooy Serigne Mame Thierno Mbacké moom Serigne Mame Mor Koso mi nga xamante ni moo toog toogaayu Serigne Mame Mor Koso mi nga xamante ni moo njëkk a nekk xalifa Serigne Mahmoudan 1966 bi sëñ Mahmoudan génnee àdduna jàmbaar ji ko wutu woon di sëriñ Mamor Koso kooku mooy xalifaam sëriñ Maam Thierno Mbacke mbokk taalibe yi wéy di def seen jaar jàmbaar ju tedd ji nga xamante ne mooy sëriñ Mamor kooku mooy am xalifaam sëriñ Maam Thierno Mbacke mbokk yi kon ba tey niñ koy defee rek ci màggalu daaru Koso dëkk bu tedd dëkk Serigne Mahmoudou ñu wéy di def ay ziare waaw ñu ñu jàkkaarlool ñooy mooy Serigne Abdou Khodos te di Serigne Abdou Khodos kooku mooy noonu Serigne Cheikhouna Mbacké taalibe yi wër di ziare mu feggoo ko rakkam Serigne Abdou Khodos mi nga xamante moom la sëriñ Mamor. duppee Serigne Abdou Karim borom teewale na ko at yu bëree bëri ñuy wër di def siyaar yi kon kooku ngeen jàkkaar lool mooy sëriñ Abdou Khoudous moom Serigne Mamor Koso bokki taalibe yi wër di def ay ziar ba léegi ba rek ñu ngi wër di def siyaar ci njabootu Serigne Mamor Mbacke kon kooku ngeen jàkkaar lool ba tey mooy Serigne Cheikhouna Mbacke moom Serigne Mamor Koso bokki taalibe yi di wër di def siyaar ba léegi. kon ba tey ni ñu ko waxee rek ñu ngi wër di def ay ziar kooku ngeen jàkkaar lool mooy Serigne Modou Habib moom Serigne Mamor moom la duppee magam bu tedd boobu du Serigne Modou Habib mi nga xamante ni mooy magi Serigne Mahmoudan Mbacke mi ñuy defaral bis bi mooy Serigne Modou Habib waajuram soxna Seyna bu Mbacke moom Serigne Mourtada Mbacke mooy waajuram bu jigéen kooku mooy Serigne Modou Habib Mbacke. mooy maam Thierno Birahim Mbacke ndaamal daaru ibnu Serigne Mamor Mbacke. sëriñ Mamadan Mbàkke di maamam Cerno Birahim Mbàkke di maamam sëriñ Abdul Xuddos Mbàkke di maamam soxna Mam Merem Mbàkke di waajuram muy taaw Mamor Koso yàgg jiite màggal gi ñi ngi lay ñaanal Mbàkke maam Cerno Birahim yàlla guddal soo fan te wéral la defal la tawfeex defal la saxaratu daaray nekk nooray daaray ni ñu yàgg la fee fekk ci sa barkeb maam maam Thierno Birahim Mbakke ci sa barkeb maam Serigne Mamadane Mbakke ci sa barkeb maam Serigne Abdou Khoudos Mbakke ci sa barkeb waajur bu baax wa Serigne Soxna May. ci sa ci sa barke waajur bu baax wa maam Mare Mbàkke ñu yàgg la fee fekk nga yàgg koo teewee ci barke sa waajur bu baax wa ñu ngi lay ñaanal yàlla guddal saw fan te wéral la defal la tawféex féex mbokku taalibe yi ñëpp a ngi ni toog dara manque fu Mbàkke xéewal yëpp doy na ñu ngi ñaan nga yàgg koo teewe ñu yàgg a topp ci sa ginnaaw. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa ñu ngi siyaar mbokk yi fi daje yëpp ak sama mbokki Daarul Muxti yi nga xam ne ñoom laa fekk fi ñaan ñenn ñu di samay rakk ñenn ñi di samay doom gannaaw bu ma leen nuyoo sant leen ak mbokki taalibe bi yëpp ba noppi nag ñëw fii tey ci barab bii nga xam ni yàlla dogal na kóllëre gu rëy amoon ci diggante ki kilifa yi. ba man mii may ku ñu jëmbate wëllëre ngir ngir kilifa gu tedd gi ñëw fi sëñ Mahmoudan suñ Abdou Lahad tuddee ma ko ngir digganteem ak moom te ni mu meloon ak sëñ Abdou nag du moom dong ba mu tuddee ma ko noonu la meloon ak doomi sëñ yëpp nag ndax jii Mahmoudan sëñ Murtala noo fi daan bokk yi te ak seq waraloon loolu soxna Mayum sëñ noonu la meloon ak moom ba mu fa sëñ Mor May mi joxoon ko ko ak suñu saa may yaakaar naa ko ci ne ci barab bi nga sampi kër. ci taxawaay yu rafet yu mat sëkk yoo xam ne eh, jikko yi Thierno Birahim rek la yoroon loolu moo waraloon nag ñëpp joxoon ko cër tegoon ko fu kawe ba indi fi seen i njaboot yi ngir bëgg sëñ bi li nekk ci mu moom mu comp ci defal ko defal ko defal defal leen ko ci seen njaboot moo tax nañu mboolem ñu jaar ci barab bii tey te kenn ku nekk ci kilifa nga ci barab bi nga ne waaye yàlla def na ci yow loo xam ne lii gannaaw bu la yàlla boolee ci borom daaru wala mu ci sëñ ci barab bii nga ko tànkee loolu nu nattabli wuñ ko leer nañu sëñ Abdou Lahad sax dafa waxante woon na sëñ Mahmadan ni ko doom ju ma jur dana jaar fi yow nga nga defal ma li ne ci yow nga defal ma ko ci moom sëñ Sidi mag di sunu mag ñëpp moo fi jëkk daje woon fekk alaaji maam Cerno ñoom ñi ak sëñ Bass Anta ñag mii tey ñoo fi bokk tase ci jataay bii ci ci ci barab bii yàlla def nag gis nga yàlla li muy def Abdou Samad mu sëñ Abdou Lahad fi la nekkoon sëñ Moussa mu sëñ Abdou Lahad mi fi la nekkoon ñun ñu fi la jaar man mii nag bi may ñëw an fii ànd naa fekk sëñ Abdou Lahad ci ci waxtu ndaw fàttewuma ko ba fi may waxee yow demaguma daara daara sax boobu waaye yàlla def nag man jamono yi may ñëw boobu wéra di gi dugg na sëñ Mahmadan loolu mooy sababu sama ñàkk a nekk ci barab bii ni kon mboolem li ma jàng maak samay rak ci barab bi lañ koy jàngee ngir ñu leeral rek loolu nag sëñ maam moor mi fi nekkoon matal lépp nag yàlla def sëñ Abdou Lahad dafa daan woo sëñ maam moo di ko téye ci kër gu boppam gi war a mat weer yàlla def nag am bis ko fi téye ko ma ñëw di siyaare si waxtu marax mu yónnee nii dem leen ci néeg bi wool ma Mamor ñu dem woy sëñ Mamor bi sëñ Mamor dikkee mu toog ma toog ñaari baat yi rek la ca wax yéen ñaar ñi ba yi war a dox seen diggante mi ngi ciy dox sëñ Mamor ne ko noonu de noonu de du ñu ci dara te mu ngi jaxasoog man te di ma seet mu ne ko euh, sëñ bi ni ko lool rek laa bëggoon a wax yàlla def na it ma woon la fi mu ko tegoon Abdou Diouf ñëw na fi yoon woo da ko woon ko ñëwal nit ñi nit ñëpp yi gisee moom kat noonu nga war a gisee moom ba kilifa yëpp teewee ku ci ne mu boole ko ndaw ni ko ni ko yóbbu ko ñu di ko def di ko def ba lépp jeex ba sëñ Mamour moom mu war a war caa des te booba ay waajuram ña nga ci biir kër googe ci wàllu Sëñ Tuubaa ak wàllu Daaru mu woo Mamour ba mu ñëw ab Diouf toog mu ne ko kii nag ni ma lay booleeg moom mooy na nga xam ne man ak baayam nii loole nag la ñuy feddali yàlla dogal su sunu doom ji nag ndaw la waaye yàqu ci dara ndax noo ko jur ci wàllu ndeyam jur ko ci wàllu baayam muy maam Thierno mii ñu xamit fi ko baayam jaarale woon ak yoon yu mu ko tegoon ak lépp lu mu ko war a wax ci leeral leeral na ko maam Thierno mii xam na ko te moom itam ndaw la waaye nag eh, teg na tànkam fa mu ko war a teg ndax gisoon na li waajuram daan jëf ndax waajuram bi fi waajuram di jóge eh, sëñ Mahamadan ay atam agul fenn fi waaye ak matam ak jikkoom ju rafet ak teg tànkam ci sarat mustaqima fu mu àgg moo ko fàggale foofee nag sunu doom ji teg na fa tànkam te ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla may ko fan wu gudd te fegal ko mépp ndog ba nisër yi nga xam ne sëñ alaaji eh, eh, sëñ Mamor nisëroon na ko ak ñoom ñu fi des di ay waajuram yëpp yàlla may ko mu taxaw ba yéene yëpp àgg ci dara ji Sëriñ Tuuba jërë ngeen noo ngi nuyu baax di siyaare jëmm ju tedd ju nu jàkkaar lool maam Thierno ibnu ibnu sëriñ ibnu sëriñ Mamar Mbacke sëriñ Mamar Mbacke ibnu sëriñ Mahamadan Koso ñoo ngi nuyu baax di siyaare di ñaan suñu borom mi nga na ma may sët yu baax na ma may sët yu dal waaye na ma may sët yoo xam ne si danañ mën a attan yoon yi waaye danañ mën a taxaw diine lislaam sët yooyu ku gis toogaay bii xam ne sët yooyu ci nga bokk waaye nag bu ñu xoolee pàkk bi ak kan mooy borom pàkk bi ak kan moo gor pàkk bi xel yëpp lay dem Cheikh Ibra Fati bu ne Cheikh Ibra Fati mooy cerno bari diine bari ngor bari xam-xam te mënut a war borom daaru muxti ñemeb dogal xam la ko war cerno wuute wala kun yónni la kersaaki teggin moo ko am te mat wala reneel naam maam cerno du xeeb du naw moo bari jom ñeme te ñoŋ Cerno ku sell la dara mosul tax mu rët boo xoolee toogaay bi xam ne fit moo tax mu toog ak njàmbaar moo ko bàyyi ci àll bi dan jàmbaar ngi nii waaye it jàmbaar nga ñun yow la ñu àndal ñëw fii ñëw fi ci ndigal taalibe bi amul lu dul dàkkuk sëriñam li sëriñam bëgg mu taxaw ci loolu pastas boobu nga doxee tey ba aksi fii xéewal li ñu fi indi koy lim teraanga moom xam na ko dox sa digganteem ak kan Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul waaye kan Cerno mi gonoon pàkk bi ki toj kinkóol yi toj kolom toj jan me gën a fay ñëloor toj koso gaynde yi nekkoon ci biim di bóor mu dàq lañu daw borom daaru muxti kon bu ñu toogee fii ñun wàcc nañu def nañ lu ñu war a def ab taalibe nag ab sëriñam dong la am bu noppee taxawu sëriñam matatul li mu doon. kon nag dañuy ñaan ci daraje Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul mi nga xam ne mu ñu lul moom Mbàkke nga yàgg fi te wér ci doole sa maam ja Cerno ci doole sa maam ju Serigne Abdoul Khoudous mi nga xam ne si kenn dootu ko présenté ci àdduna Serigne Abdoul Khoudous mi nga xam ne si yaakaar naa ni bu ñu xoolee yoonu murit ak njabootu Cheikh Ibra Faty xam nañ mooy kan. boo xoolee jenn doomam ji ñuy wax Serigne Abdourahmane Mbacké day doy sëkk exemple da ngay xam ne kii bàyyam amoon na taxawaay bu dugg Adama Adama kontaan nañ bu baax ñi ngi ñaanal ñëpp suñu borom defal leen tawfeex di ñaan suñu borom sàmm mu di ma jàngal nee na eh, bind ci arab moom sëñ Mouhamadane moom ñuy tudd bind ci arab ak naan kaasu ndox la yemale ne en 1945 sëñ Moudou Moustapha dafay jógee ñu wax ko ko rek mu daal di bindukaay mu daal di jël bindukaay ak ak kayit daal di koy marsiyaal keroog euh, sëñ Bassirou euh, Assuloo tari na fa marsiya ba a ah, kon nag kooku bu ñu ko dee taxawal bis defe naa ne Sénégal gépp lañ koy lañ ko taxaw bu ñu ko dee fàttaliku Sénégal yëpp war nañu ko fàttaliku ndaxte jëmale woon joo xam ne ji ku mën a jàngale la ku mën a yar la ku nangoo liggéey la tey dama ciy jox ay sample rek ci jikkoom dama laa wax ne maanaam dama koy wax léegi-léegi may leen maanaam dama gis ñaar ñoo xam ne rek kenn lañ ci lislaam kenn lañ ci yoonu murit muy Cheikh Abdou Lahad Mbacke ak Cheikh Abdou Khadim Mbacke ak fañ teg fañ tegul sëñ Mahamadan ak ko ko fa teg mu nekk ca mu nekk ca loolee nag ba yàlla dogal mu wujji boroomam en 1976 mu fi jógee 76 nag ah, doomam ju baax ji nekk fi di Mamour Mbacke sëñ Mamour Mbacke moom koso nekk fi ak rakkam sëñ Njaga nekk fi sëñ Moustapha nekk fi ak seen i jigéen ak seen ak taaliba yu mag yi fi nekk yëpp ba tey jii ñu ñu di ko war mu tàmbalee ko wootal bis bi nag di woote bis bi ba tey ji yàlla def maanaam mu dëddunu moom sëñ Mamour Kosso fa mu taxaw tegan tànkam ba it mag rakam yu baax ji ak doomam yu baax ji teg ko fa muy sëñ Maxtaar Mbakke ak sëñ Abdou Lahad Mbakke ak maam Thierno ak seen rak ak rakam taaliba yi kenn ku nekk waaye nekk euh, jóge nga fa ñëw ngir bis bi kon nag bu buñ fi teewee day ñaan ci yàlla rek luñ fi ñaan yàlla na ko yàlla nangu yàlla na ko yàlla nangu te yàlla na tax ci barkeem ba sëñ Mahamadan nag wax ci moom lu bari la ndax ndaxte ndax jikkoom ak ku meloom ak jàngalekatam ndax man ki ma yar mooy magam muy Cheikh Abdou Khoudous Cheikh Abdou Khoudous mooy mag Cheikh Abdou Khoudous Cheikh Cheikh Mahamadan moo topp ci moom ndax soxna Mariam Balla Sil mooy seen wëj ak maam Thierno Birahim maam Thierno Birahim soxna Mariam Balla Sil ñu taalu sëñ Modou Habib teg ci Cheikh soxna si Thierno ak ak ak Cheikh Abdou Khoudous ak Cheikh Mahamadan noonu lañ toppantee kon lu ma ci xam bari na lool waaye nag jataay bi mayewu ko waaye na kon noog ñaan ci yàlla yéen ñi teew ak seen yéen ji ngeen am ba ñëw ah bu déwee ne yàlla na ngeen yokk ba yëg ko ci barke borom bis bi xawal sëñ Mahamadan Thiam kon xanaa wax sa bisub turandoo dina yombalal kon loo ñuy fàttale ci jëmm ju tedd jooju muy sëriñ Mahamadan sa turandoo ñoo ngi leen di asalaamaaleykum di leen siyaare ci ñëw bii ngeen xam ne moom ngeen fi ñëw yàlla na leen yàlla ak sëriñ Touba defe li xeewal ndax ñëw ngeen sàkku si ci ki nga xam ne muy ku ki kii doon wax mooy Modou Mbeng di bëkk néegu Cheikh Abdou Khoudous Mbacké li mu wax ci Serigne Abdou Khoudous lu yàgg la ci moom ndax euh, ba mu nekk ak Serigne Abdou Khoudous yàgg na mu jóge fii dem Europe yàlla dogal Serigne Abdou Khoudous jóge fi noppalu li mu wax ci Serigne suñ Serigne muy sëriñ Mamor Koso mooy nit koo xam ne dañ koy ñaanal rek yàlla ak Serigne Touba yokk ay leeram muy nit ki nga xam ne ñun ñëpp fi lan defaroo fii ci Daaru Koso di wax ni rek bis bii ku ñëw Koso xam ne day dëkk boo xam ne ku fi teg sa tànk rek araamal na sawara fii nii ku fi teg sa tànk rek pour ñëw pour sàkku si araamal na sawara ni koy defee boobu ba léegi rek ñoo ngi fii ci Daarul Koso ci màggaluk sëriñ Mahmoudan di wéy di yàggale liggéey bi comme ni ñu koy defee ci daayira yëpp mhm. ñoo ngi fii ci kër Serigne Maam Thierno Mbacke mi nga xamante ni mooy xalifab Serigne Maam Mor Koso ñu taxaw ak bi nga xamante ni mooy xidmatul xadim fas yéenee taxaw liggéey bi ci biir kër gi ñu ciy feggoog Serigne Cheikhouna Diop mu dina jotale ay kàddu ci turu xidmatul xadim sëñ Maam Mor xidmatul xadim ban yëngu lay am ci biir kër Serigne Maam Thierno ci liggéeyu màggaluk Daaru Koso ak mbokki taalibe yi nga xamante ni ñoo aju ci kër Serigne Maam Mor di ko dégg ku ci bëgg a jokk nan lay def ak nit lay mën a def ba jàpp ci liggéey bu am solo bi nga xamante ne xidmatul xadim mi ngi koy amal ci kër sëriñ maam Thion sëñ maam Mor bisimilah. kay asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaare bu baax eh, di leen jaajëfal bu baax waa Tawfekh Production ñu ngi leen di ñaanal taxawaay bu rëy bi ngeen taxawee ci màggal gi suñu borom fay leen ci na ngeen daje ci ngërëma Serigne Touba ñu ngi bég lool di am contentement bu baax bañ leen gisee ci biir kër gi waaye di rafetlu seen taxawaay bu baax euh, li ngeen ñu laaj nag dinañ ci sawar ndax daayira xidmatul xadim moom daayira la boo xam ne ñoo amuk sunu bëgg am sunu euh, yëngatu am sunu positif rek tax ñu gis ne war nañ koo taxawal bañ ko taxawalee itam wax dëgg ñu waxtaan ceeg sëñ bi mu mu mu gën ñu cee joxaan digal waaye li waral sabab li sabab ñu taxawal ko mooy gis nañ ne comme que ñun ñoo ñëw ci sëñ bi ne ko jox nañ la sunu bopp àddina ak àllaaxira euh, te ñun la am kër gu nekk am na daayira ñun ñu ne euh, kër la ko war a taxaw la ko war a ñoŋal la ko war a may sécurité mooy daayira ba kër sëriñ la ko war a taxaw la ko war a ñoŋal la ko war a may sécurité mooy daayira ñu daal ne nañ dajaloo fa yéene ànd ak sunu sëriñ bi nga xam ne moom lañ yaakaar fii ak ëllëg mi nga xam ne moo dox suñ digg ak sëñ Mamor dox suñ digg ak sëñ Mahmoud euh, euh, euh, sëñ Mahmoudan dox suñ diggan borom Daaru Muxti dox suñ digg ak sëriñ Touba comme que ñun moom lañ yaakaar ñu ne nag nañ taxaw ngir àndandoo liggéeyal ko bañ àndandoo bañ taxawee nag ne képp dañuy liggéeyal sëriñ bi danoo mujj sas suñ bopp ndax ab taalibe moom dafa war a sas boppam njëkk sëriñ di ko sas ñu daal di sas suñu bopp ne nag duñ def daayira rek ngir xidma waaye dañuy def daayira di xidma boole koog addiye joo xam ne dañ koy dajale yóbbu ko ci sëñ bi loolu nag daayira bi sag màggalu Daaru Koso da koy da maanaam day feeñal taxawaayam day feeñal taxawaayam lool ci liggéey bi ndax gis ngeen màggal gi sëriñ bi tabaarakallaahu ni gan yi bëree nu muy xate ni gan yi dugge sëriñ si ku nekk jóge fu nekk mbokkam yi ak am di jàmmam yi ku nekk di ñëw su ko defee daayira bi bu amul sécurité bu taxawaay rek maanaam liggéey bi mën naa sooxe looloo waral maanaam ñu am ci taxawaay bii nga xam ne maanaam tabaarakallaahu sang màggal maam sang màggal dañuy taxaw gani sëriñ bi di taxaw yu mbokki taalibe yi di dalal mbokki taalibe yi ci màggal gi léegi nag euh, ban taxawaay la am ci kër sëñ bi mooy loolu xidma gi rek ndax xidmatul xadim dañuy liggéey sëñ Tuubaa taxawaay biñ ci am mooy liggéey gi kon liggéey bépp liggéey bu aju ci kër sëñ bi ñun ñoo koy liggéey ñun daayira xidmatul xadim fii ci kër sëñ maam Thierno ndax suñ demee ci barab yi ñun barab bi lañ mën a taxaw keneen ta xaar ñu ci barab bu suñ maxtaar keneen xaar ñu fee keneen xaar ñu fee ñun ñëpp benn lañ waaye ñun ci waa kër xidmatul xadim waaye daayira xidmatul xadim bu maam Thierno koso kër sëñ maam Thierno gii lañ nekk li ci liggéeyal sëriñ bi waaw nga xamante si ni maanaam dañ ciy fas liggéeyal sëriñ Touba ndax moom moo dox suñ digg ak sëriñ Touba nga xam ne loolu daal moo war a lëggéey bi su ko dee ki ci bëgg a bokk nag moom day ñëw ci jëwriñ ji jëwriñ ji mooy euh, bi dee Touba am nañ fa bànqaas fii ci kos am nañ ci bànqaas jëwriñu Touba Serigne Nourou Tall lañ koy wax mi ngi nii feggoog man bu fekkee ne jëwriñu koso ji euh, Serigne Diagne moo fi nekkoon waaye ku bëgg a kii mën naa ñëw ci sëñ Mor waaye sëñ Diagne mooy moom it jëwriñ la ca Ndakaaru ak fépp foo xamante si nii rek maanaam ma nga fa dañu fay wuutu même ñu nekk Touba sax sëñ Diagne pëstéefam tax na mu mën leen a wuutu ngir day woo nit ñi di leen taxaw di def lépp kon képp ku bëgg bokk ci daayira bu jaaree sëñ Jaañ dana ci bokk bu jaaree sëñ Nuur ci bokk bu jaaree ci ñun itam des na ko tegal ci yoon woo xam ne dana fa bu fa yeggee dana ca bokk niñ ci bokkee nag mooy da ngay ñëw ngir ñu ànd liggéeyal sëriñ bi weer wu dee nangam ngay joxe muy 500 francs at mi 6000 ñu ànd liggéeyal ko sëñ bi dajal suñu addiye bi su màggal ko suñu ñëw jébbal ko sëñ bi ñun nag amuñu lu tus lu bi moo tax defoon nañ ci moom benn woy bu gàtt boo xam ne rek ci moom la ñuy la ñuy tëjee nga xam ne ñun sëñ bi moo ñu ñor te ci moom rek lañ tënku te moo dox suñ digg ak suñ Tuubaa danoo waxoon ci woy wi ne salaamullahi aleykum ab nuyoo la bu yiw moo tax ñu jébbal ko sëñ maam Thierno mii ñu fi am salaamullahi aleykum ab nuyoo la bu yiw moo tax ñu jébbal ko sëñ maam Thierno mii ñu fi am xidmatul xadim yaay seen jëwrin te yow la nu gëm moo tax ñu ñëw ci sa bis bi ngir tax ñu ñëw ci sa bis bi ngir sa maam ji nga am bisum ngëneel la bis bi bis bu rëy la ci nun moo tax ñu ñëw ànd ak mbooloo mu rëy mi nu am indaale nañ hadiya di sakku rekk sa mbég teya teyaay sunub sang maam tey teyaay sunub sang doyloo nañ la yow la nu gëm teyaay sunub sang doyloo nañ la yow la nu gëm ndax yaa waxoon ne sëriñ Mamoor sa jëwriñu yow te moom sëriñ Mahmoudan moo nekk ab sëriñam ku baax ku sell ku am xam-xam la woon te boroom daaroo di aw way juróom moo nekk it sëriñam yàlla na jëwriñ du ñàkk jëwriñ du ñàkk suñ digg ak sëriñ Touba moo tax ñu doy loola jël suñ lépp ñëw ne la am moo tax ñu doy loola jël suñ lépp ñëw ne am yàlla na fi yàgg te dollee làq seen i ngërëm yàlla nañ fi yàgg nu nit bay làq seen ngërëm te xawlu nan te di ñaan siidil muxtaar mi fi toog jotaayub sëñ Mahmoudan buur bi dolli ko ndam mu am baydu xaraw moo xam ne nag dañ koy jagleel mbokki taal bi yëpp yoo xam ne toll nañ ci étape boobu ma wax ne taxawlu naa te di ñaan suñ soxna nekk ku baax te yàlla na ñëw léegi barkeb sëñ bu mag binu gëm loolu nag li tax mu bind ko mooy tabaarakallaa dañoo bëgg mbooloo mi gën a yokk soxna yeeg ñëpp gën a yokk ndax gis nañ ne ku ñi denc ci bañ sosee ba léegi ñu ngi ñëw ak seen soxna te loolu day taaral liggéey bi di ko gën a rafetal ñoo ngi ñaanal sëñ bi suñu borom yàggal ka fi te may ko wér woyofal yan wi ci kana maam ci kawam ba lépp lu mu bëgg a liggéeyal sëriñ Mam Moor maanaam euh, maanaam maam mu ci mu ci maam lu kawe njortam ci barkeb sëñ Tuubaa ndax sëñ Mam Moor lay liggéeyal mooy jëriñam Euh, waaye nag sëñ Mame moor ki ko fi toogal maam ki fi toqali fi sëñ Mahmoudane moom lay jàppale ci liggéey bi sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ Makhtar moom it ñu ngi koy ñaanal suñu borom yàggal ka fi ñoo ngi jéggalu lu ci jub ñu sant ko yàlla lu ci danga ñu jéggalu ko ngeen xam ne daa doomu aadama boo xam ne daa tële wax rek ñu jox ko micro bi muy wax moo fi taxaw wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu xidmatul xadim moom ku ko suñu borom defal muy taw feex rek kon sas nañ la kon yoon waa ngi noonu jërëjëf yaan borom defal dégg ak topp te ngërëmul sëñ bi ci dàggoot suñu borom defal na ko ci ndax borom bis bi mën na ko te mate na ko nañ góorgóorlu rek te gëm ko yàlla nag suñu borom yàggal lool ñu yàgg fee fekk ay ati at jërëjëf te suñ télévision bi ñu ñaanal ko production tawfeex fu mu bëgg a yegg rek mu yegg fa ci tawfeexi Cheikhul Khadim wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. asalaamaaleykum mbokk yi comme ñu ngi ci bis bu tedd bi ñu ngi taxaw ak Serigne Mahmoudan Mbacke moom Baye Cheikh Khadim Mbacke di ko ñaanal suñu borom may ko fanu gudd lool wànd ak wér ñu taxaw ci bisu turandoom bu tedd bi mu defal ñu ci ay soñe ci bokki taalibe yi koy fekkee ak jëmm ju tedd jooju nga xamante ni waajuroom amoon na ay kóllëre bu baax a baax ak Serigne Mahmoudane ba duppee ko comme niñ ko sëñ Mahmoudane suñu Abdoulaye waxee léegi rek kon Serigne Mahmoudane ginnaaw bu la bokki taalibe yi nuyoo sant la gërëm la ñoo ngi laaj sa bisu turandoo bi rek nga defal ñu ci ay soñe yu mbokki taalibe yi mën a yóbbaale rek mbàkki bala bisimilah. kay asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu eh, mbokki jullit yi. Eh, mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu eh, di leen ziyaara bu baax ci bis bi nga xam ni bis la bu bu am solo di bisub sëriñ Mahmoudane eh, moom borom daarul muxti yàlla dogal nag moo bokk ci ñi am tawféex sunu wayjur duppee nu ko muy muy ak cant ci man gu wér wér yàlla dogal itam Euh, xaj na bi muy nekk ci àdduna yàlla dogalul ma fekk ko fi euh, sama jur yëkkati ma jox ma sëriñ Mamor euh, di ko ñaanal yàlla moom itam seen borom yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem ndax damay wax ni daarul koso moom dëkk la boo xam ne bu fekkee ni fi nga dëkk walla nga bokk ci daaru musi ak foo mën a bokk Euh, boo boo déggee turu dëkk bi sunu boroom dimbale la war ngaa mën a ñëw ba agsi ci dëkk bi itam barkeelu fi ndax doomi sëñ Tuubaa yi mën naa ni ñi ëpp ja ñëw nañ fii seeni seeni doom itam ñi ci ëpp fii lañ jànge euh, doomi borom daaru itam ci ñi nga xam ne ñoo gën a féete ndaw ñi ci ëpp fii lañ jaar kon fii université la boo xam ni euh, mën naa ni Sénégal réew mi ñëpp fi la ñu ci ëpp ñiy coow ci boroomi xam-xam ci Sénégal bari na koo xam ne nii fi nga jaar wala boo fi jaarut it jàngal fi la jaar loolu muy muy muy muy feex goo xam ni ah, sunu borom jagleel na ko borom Daaru ti jagleel ko sëñ Mahmadan ndax borom Daaru ti dafa amoon eh, yéene ci ci dëkk bii eh, man eh, sama wayjur bi sëñ bi sañcee Daaru Koso ci jamono boobu ci la gane àdduna Eh, bi muy sanc fii sëñ bëggoon lool koso gii fonk ko xamoon ni itam ngëneel yépp mi ngi fii eh, ba tax na mu mu mu mu doon sàkku di di wut ku ku fi nekk ku fi andi rek àll bi xawoon a jafe ndax lu baax du yomb su sunu borom dimbale sëriñ Mahmadan ba bi ko sëñ bi ko bi ko ko bi ko borom daaru joxe ndigal li mu daldi di mu ñëw fi nag toog waaw ndax xam na ni ndigal sëñ Mahmadan moom du li ko borom daaru li ko borom daaru Muxti jur waaye ndigal moom daf ko mas a fonk nekk na fi ba jóge fi fépp fu ndigal jóge eh, ci moo xam ci ci borom daaru Muxti la jóge wala ci ñi fi nekkal sëñ Touba mus sa yamale ndigal ak dara bi mu ba gisatul borom daaru Muxti itam képp ku fi nekkal borom daaru Muxti wala ngay eh, kilifaam eh, ndigal loo ko jox balaa toog wala balaa defati dara ndigal loolu daf koo jëfe ba noppi loolu moom nit ñëpp xam nañ loolu ci sëñ Mahmadan di ñaan yàlla yàlla taas ci barkeem te itam lépp loo xam ne bàyyi na ko fi si ak njaboot sunu boroom teg ci loxoom ndax euh, euh, loolu itam euh, dinaa fi dinaa ci taxaw tuuti ci doomam ji di sëñ Mamor ndax jamono bi fi sëñ Mahmadan di jóge xañ na booba ay atam am na foo xam ne ni fala la toll waaye ndimbal gum am ak jom jomi boppam tax na euh, lam waroon def lépp ci digganteem mag sëñ Mahmadan war koo def digganteem ak dëkk bii sëñ Maam Mor taxaw na ci ba lépp àdduna nag moo baaxoo noonu ndax kenn du fi nekk di dem waaye li wér te mooy sëñ ma sëñ Maam Mor euh, euh, doomi sëñ Mahmadana am na am na am na jom am na ngor am na fit dégg na ndigalul waajuram ba toog ci dëkk bii ba lépp fekk ko fi lépp loo xam ne nii sëñ Mahmadan yéene woon na ko ci dëkk bii sëñ Maam Mor toog na fi ba loola sotti mu door dem dem àjjana kon mën naa waat wala moo wax ni am na ngërëmal maam Thierno am nga na ngërëmal sëñ Mahmadan euh, rakkam yi itam yëpp noonu noonu lañ mel ba kii nga xam ne moom la fi yàlla teg muy sëñ sëñ Moxtaar nga xam ne ñun ñëpp ci moom lañ jaar moo ñu toqi moo jàngal loolu dong lañ xam ci moom maandu jàppu njàmburam nangoo jaamu yàlla lépp luy luy luy ay caaxaan sëñ sëñ sëñ Maxtaar kenn du ko ca dégg du amu ca kàddu amu ci meer bu dee ak jub lu baax nag boo ko ca woowee boo nekkoon ca fu mu mën a doon sax mu fekk la fa ndax lu baax rek moo ko moo ko ñor te loolu ñëpp mën mën nañ ko koo séeréel kon nag ñu ngi koy ñaanal bu baax sunu boroom guddal aw fanam ba magam yi baax yi yéene woon mu mottali ko def ko ba def lu kawe njortam doomi sëñ maam Mor jii di sëñ sëñ maam Thierno nga xam ni man moom <clears throat> ñoo bokkoo nekk fii sëñ maam Mor boole nu yóbbu ñu jàngi ñu boole ñu indi ñu nekk lépp lu ñuy defandoo ñun ñi ñoo maa moom ñoo ko ànd di ko def moom itam ñu maa ngi koy ñaanal ci barki sëñ tubaa ak bisu waajuram wu tedd wi sunu borom dimbale ko ba yéene ji nga xam ne sëñ maam Mor amoon na ko moom itam mu àggale ko mu bañ am menn ndokk barki Seexul Xadiim taalibe yi itam képp koo xam ne nii teew nga fi mën naa ni am nga tawféex ndax bis la boo xam ni eh, jar na teew képp koo xam ne nii suñ borom dimbali na la ba nga teew fii itam mën naa ni am nga tawféex ju rëy rëy rëy waaw ndax loolee sëñ Abdou Khadre doon wax ni eh, daarul koso peg peeg la boo xam ne nii seytaane xamu ko loolu mooy dëgg. waaw lépp luñ fi mës a liggéey ci ja sëñ Mahmadan ci jamono borom daaru sëñ Mahmadan lépp luñ fi mës a liggéey itam. ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ndigalu sëñ Touba ci ci dundub sëñ Touba la jëm fii bari bañ na ko ba am na daaj boo xam ne nii mag ñi dañ koo créé woon sax bu ñuy góob dugub ji sax am na daaj xasida boo xam ne nii moom lañ ko jagleeloon ngir di ko góobi dugub ji yóbbul sëñ Touba kon nga xam ni fii dëkk la boo xam ne nii ku ko xamutoon war nga koo xam képp ku fi ñëwutoon war nga war nga fee ñëw képp ku sunu borom dimbale itam ba nga bokk daarul koso wala nga am fi kër wala nga nekk fi wala sa wasila nekk fi loolu tawféex gu rëy rëy rëy ñu ngi ñaan ci barke sëñ Touba ñu màggal ko ay at yu baree baree bari barke Seexul Xadim sunu borom yàggal fi lool sëñ Muntaxa yàggal fi itam sëñ Basiiru Antañang yàggal fi sëñ Maxtaar ak mbooleem jullit ñi yàggal fi taalibe yi te jox leen ay xéewal ak sutura defal leen tam xéewal yu ñu mën a liggéey sëñ bi wasalaamaaleykum wa rahmatullah amin jërëjëf kon kin jàkkaarloon mooy sëriñ Mahmoudan moo Baye Cheikh Khady yal na suñu borom yokk fanam te may ko wér te ñu teewee ko at yu bëree bëri barki Cheikhul Khadim rek ñu fii ci kër Serigne Ahmadou Mbacké di doomi Serigne Mame Mor mi nga xamante ni moo njëkk a nekk xalifab Serigne Mahmoudan mbokki taalibe yi di wër di siyaare ci bis bu tedd bii di màggaluk Serigne Mahmoudan kooku ñu jàkkaar lool mooy Serigne Ahmadou Mbacke moom sëriñ Mame Mor baax na kon mbokk yi kooku ñuy jàkkaar lool mooy sëriñ Mahmoudan Mbacke moom Serigne Mamor Koso moom it bokki taalibe yaa ngi noonu mooy Serigne Mahmoudan Mbacke mi mu tuddee boroom bis bu tedd bi ñuy def tey. ñoo ngi lay ñaan ci jëmbi bis bu tedd bi di bisu Serigne Mahmoudan bi. suñ borom tawfeexal ñu teewale ko ci muy jëmm joo xamante ni histoire tudd na ko l'islam tudd na ko muy jàmbaar joo xamante ni diine rek la fi nekkaloon ku suñ borom may tawfeex nga ñëw ci bis bi nag ñu ci sàkk luñ ñi nga xamante ni ñëwuñu luñ dollandikoo ci jëmm ju tedd jooju. waaw ah, xanaa di wax alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayidina wa maulana muhammadin al makin wa ala alihi wa ashaabihi sawri dwan wa tamkin di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu si turu mboolem jullit yëpp si turu mboolem taalibe yi nga xam ne ñu ngi fii si biir dëkk bi waaye taalibe yi nga xam ne si biti dëkk bi di sant yàlla di jiital am nuyoo bi si sit internet bi di Tawfekh euh, Production ak mbokk yu baax yi ne àndal ñu am mbégte taxaw fii di yëkkati ay kaddu yoo xam ne ñu ngi ko jëmale si jëm ji tedd ji si si Mahmoudane ak euh, ñi nga xam ne ñoom la fi bàyyi di wax ne sant nañ yàlla baax baax la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne doomu aadama bi bu wàccee ab liggéey léppam dog na ba maanaam sarax boo xam ne yàlla nangu na ko ak barab boo xam ne si ña ngi ko jëfandikoo ngir yàlla ak doom ju baax joo xam ne dana la mën a ñaanal sa ginnaaw mu mel ne sëñ Mahmoudan sunu borom defal na ko tawfiix moom si jëmmi boppam liggéey na moom ba boromam gërëm ko si taawun wa taawunu alal birri wa taqwa wala taawunu alal ismi wal loolu la fi nekke woon daay iman ba fi jugee ñu fi jugee bàyyi na fi doom jooju yonent bi sallallahu alayhi wax ne boo ko fi bàyyee sa dara dogut muy suñ Mamor suñ suñ Mamor Mbakke ku ñëw fii xam na ne lislaam ñor na ko la ñoroon ay wajur ñor na ko ndax dëkk bi li fi ëpp valeur mooy néegub yàlla wa anal masaajida lillah rabbi yàlla moo ko moom jullit yi ñoo moom si kaw buñ ko xamee waaye it ñu taftal sa lu ma ni daare alxuraan booy dugg si sa ndeyjoor moom nga jot soo jàllee ba sa biir it néegub yàlla nga jot mu mel ni kii këru yàlla la fee néegub yàlla la ñoo ëpp valeur si biir dëkk bi kon loolu day wane ne ñu fi bàyyi la seen wajur nekkoon muy siraatal mustaqim ñoom it teg fa seen tànk ba tax na bi ñëwee am na mbégte moo xam ne bis bii di bisu Sëñ Mahmoudan am nañ yaakaar na képp ku fi agsi loo fi fas ak lépp loo fi yéene wala lépp loo fi ñaan sa borom mën na koo nangu ndaxte ñoom sunu borom daf leen defal tawfiix yi dañuy jot na jóge nañ fi waaye ñoom jógewuñ fi ni ko alxuraan waxee rek sunu borom dañ leen wërsëgal di leen xéewalal ba saa di taxaw duñ fi mas di jóg mukk bët yi nag mën na noo nabbu waaye nag la nga xam ne si mooy ruux gi ma ngay dund fa sunu borom ba daa yawmal qiyaamati akbar kon ñu ngi sant bu baax a baax di gërëm di ak kilifa yi sëñ Baye Cheikh Modou Touré ak euh, sëñ Cheikh Touré ñu àndoon doon siyaar si fekk leen fi yéen di ñaan suñu borom dafa leen tawfeex li euh, leen tax a agsi it site internet bi yàlla na suñu borom dafa leen si tawfeex ngeen dem ba yaatu ba jur yu bëree bëree bari te li nga xam ne si moom ngeen si dàkk suñu borom dafa leen si lu kawe seen jot sant nañ bu baax gërëm nañ bi nga xamante ni mooy euh, doomi Serigne Maam Thierno Ibrahima Fati ñu yàgg koo teew at moo jot ñu teew fii ci kanam ak Serigne mi nga xamante ne mooy xalifab Serigne Modou Habib di xalifab kër sëriñ Serigne Mahmoudan di ko ñaanal suñu borom may ko ak yàgg ak wér ba mu yàgg a taxawee bis bi at mu jot ñu àgg koo ànd ak moom muy kenn koo xamante ni kenn la ci max Mahmoudan heure bu ñu fi ñëwee rek bokki taalibe yëpp seen i xol dina tooy seen i xol dina fàttalikuwaat ci jëmm ju tedd jooju nga xamante ni ndaw yëpp mag ñi sax mën nañ ko tàmbale ci jullit yëpp kenn ku nekk am nga xemmemteef ci xam ci jikkoy Serigne Mahmoudan ji nga xamante ni moom la nekkee woon ci dëkk bi kon Serigne Cheikh ginnaaw bu ñu la nuyoo sant la gërëm la ñoo ngi taatan di yalwaan ay kàddu yoo xamante ni bokki taalibe yi dinañ ko mën a amee ab yóbbal ci bisub jëmm ju tedd ji kon sëñ bi bisimilah tafaddal mask bismillahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayidina muhammad xaatimu nabiyin imaamul mursalin rasul rabbil alamin maa ngi nuyu mbooloo mi mépp waaw ñi nga xam ne dañoo teew tey ci bis bi ak ñi am yéene te teewuñu di ñaan sama borom it li ñu ci am lépp ci tuyaaba ñu bokkook ñoom di ñaan sama borom it képp ku fi taxaw rek ngir jëmmi ki tax ñuy def bis bi muy sëriñ Mahmoudan yaa xam lay lay sa aajo yàlla na ko yàlla faj waaw bis bi nag sëriñ Mahmoudan nag kenn du ko ëppul bis ndax euh, liy maye bis lépp. ak liy tax ñuy wutal nit bis lépp da koo def ba mu jeex waaw ndax biñ koy indi fii boroom daaru di ko fi indi dafa jóge daaru salaam jàng ba àggal mu dikkee ah, am na ay bokkam ak i taalibeem yoo xam ne dañ ko ne dañ laa bëgg a sancal diggante njigal ak Taïba Njaañ ab dëkk nga dëkk fi mu ne leen loolu day baax na waaye nag dama ko sëñ def te tagguma sama kilifa mu dikkee ci boroom daaru ne ko ñëw naa waaye bokki ba Njaay yi ak bokki njigal yi dañ maa bëggoon na sañcal ab dëkk foofu ma ne fa mu ne ko dëkkub lan déedéet xoso day dëkk bu ma fonk sëñ Tuubaa digal ma ko ma sañc ko lu ma fa mës a sëñ Tuubaa laa ko yóbbu lenn lu ma mës a liggéeyee kosol mu jëm si ci man wala mu jëm ci keneen ku dul sëriñ Tuubaa amut waaw moo tax ma bëgg daal nga demal ma fa naqari nag daa tax ku ma fa yebal rek doo fa yàgg nga jóge fa mu ne ko man de boo ma ñaanalee bu ma demee danaa fa toog nag ma ñaanal rek mu ne ko soo demee nag Mahmadan na nga way ci liggéey ak jaamu yàlla ndax bu la àddina bépp doon jox te liggéey yu dañ naa liñ koy jox fu mu dugg soo nawee sa bopp ba jàmm woo yàlla ba dem yowmal xiyaamin danga nga réccu loo ko doon defee kon nag soo demee na nga ci way ci jaamu yàlla ak liggéey mu daal di ñëw fii daal fi toog ndox amu fi tuubaal la ñuy rooti ji bi mesere bënnee ñu ne ah ndox de am na ndax mesere bën na ndax suñu digganteeg mesere fukki kilomètre ak benn rek la mu toog fi rek sax fi loolee ko borom daaru waxoon it mu dolli ca leneen na nga sax ci jaamu yàlla ak liggéey mu dolli ci nag jàngale bal bëtiku di fi jàngale alxuraan di fi jàngale xam-xam ba ñu bari ci waa kër borom daaru fi la jànge lu bari ci sëti sëriñ Tuubaa yi fi la ñu jànge waaw mu boole kook taalibi gu mat sëkk waaw kenn ku ne lam war la yow xam na ko kenn ku ne ak taalibi rek lay la la la lay ànd yow ci ñii nga xam ne ñoo di ay magam ak ñi nga xam ne ñooy waa kër sëñ Tuubaa ah, sëñ Modou Moustapha dafa wax ne yéem naa ko ci yaar yëf moom max moo Mahmoudan heure bi muy jógee Daaru Muxti di jàngi daaru neex na neexit woo xam ne kenn waru faa mën a jógee di jàngi ba ma ko xameek ak léegi it musuma nuyu dara ci sama loxo loolu sëñ Modou Moustapha wax ne loolu laa ko yéeme sëñ Fallou dane man da yett yi mboole moo ma jaaxal xam-xam bi ak taalibe gi ak diine ji waaw ñaari boo masaan bari xam-xam am diine sax taalibe du demee noonu waaye Mahmadan lu muy def rek taalibe gi lay jiital soog cee teg li mu ciy teg loolu la sëñ Fadilou wax ci moom sëñ Abdoulaye moom dafa wax sëñ ma Matar sàmma ne ko damaa bëgg nga wax ma lu ceer Ceerno gëne Mahmadan te bul par làqu nag waaw ndax baax moom puso bu réer la gone mën na koo for mag mën na koo for loolu la ko sëñ Abdoulaye wax mu ne ko ah, mën naa laa wax daal li mu nuru Thierno mun ne ko lu ko nuru mun a ko mën a leem waaye nag danaa la wax ji koy Thierno mu ne ko ah. mu ne ko nit ku ñeme dëgg murit murit saadix xam bu doy sëkk njàmbaar gu sëkk fit wu doy sëkk di tabb dul jeexal nangu ndigal ci ñi muy diisool xame na xam nangu caa tabbi gisul lu kenn am <laughs> mu ne ko lii mooy jikkoy Cerno waaw ah, loola nag ñooñu ñëpp seereel ko ko nag mu way ci loolu bu sëñ Mourou Balla soxlaa woolu ko bàyyi na la doon def lépp li soxla sëñ Mourou si aggut du fa jóge bu sëñ Fallou woolu ko bàyyi na la mu doon def lépp li fekk soxla sëñ Fallou sa aggut du ko def du demaat fen <coughs> noonu la meloon nag sëñ Abdoulaye Titam ak waa kër sëñ Touba yëpp ak waa kër Thierno yëpp waaw noonu la meloon nag ñoom kooku nag mooy Mahmoudan képp ku dikk yi dalay wax ne la magum jëmm nga de sañu ma la ne doo taxawaaloo waaye sañ naa ne doo taxawaaloo fi man na nga waay ci jàng ak liggéeyal ma mënoo waay ci liggéeyal ma nga waay ci jàng ak liggéeyal sa bopp loolu nangu naa ko waaye bu jàngoo liggéeyaloo ma liggéeyaloo sa bopp du ma ko du ma ko nangu mag nag kenn ko ne doo taxawaaloo waaye nga waaye sañ ko ne doo taxawaaloo fii ci man loolu lay wax soo dikkee di muritu loolu lay wax ne naa ah, ba mën cee dugg ndax du ma nangu nga ne fii liggéeyaloo ma liggéeyaloo sa bopp soo fi toogee man nga maa liggéeyal wala nga liggéeyal sa bopp loo ci def juboo naa ci ak yow waaw ci loolu la nekk ci loolu la nekkoon di ko digal dëkk bi dëkk bi bépp am na bis mu ne ma wal dëkk bépp ñu teew mu ne ma yomal xëyam kenn ku ne da ngay layoo ak sa mbooloo ma bëgg a layoo yéen fii bala noo dem barsax waaw na ngeen xam ne yàlla dafa sàkk yaari yoon yoon wu na jëm ci kër yoon woo ci aw te dëpp nag na xam ne dara mun laa tee àgg ci kër nenu it lii ma leen di digal waxtu bu ngeen gisee ma bàyyi ko man jaaruma ci da ngeen xam ne Mahmadan moo jadd waaye yoon moom jadd ma nga fa mu nekkoon da xam ne Mahmadan la jadd te bu keroog yéen da ngeen ma jaanal ma dellu si yoon bi waaye bu leen nekk lii Mahmadan def lii la digal waaye lii lay def mu ne déedéet yoon du soppiku bu keroog yéen da ngeen xam ne max Mahmadan ci boppam moo soppiku waaye man su waaye waaye yoon te bu keroog yéen da ngeen ma ñaanal ma gaaw a dëpp lii lii lii la lii la wax waa dëkk bi ne nag ku ne da ngay laaj sa mbooloo ma di leen xamal ne sama ñaq bopp bi mënu ma cee naan mënu ma cee sangu kon du ma ci diggee sang kenn walla ma bëgg ci kenn waaw loolu leen wax waaye leen ci jaamu yàlla ak liggéey ak maandu ak la nga xam ne ak la nga xam ne moom ngeen yéene seen bopp ngeen yéene ko seen morom yi loolu la wax nee na la gën a wér li nga yéene sa bopp yéene ko sa moromu jullit la nga bëgg ci sa bopp bëggal ko sa moromu jullit lii daal moom la nekkee woon di fi liggéeye di joxe addiya nekk ci taalibi yor taalibi gu mat sëkk ngor gu mat sëkk nee na waxtu bu ñu ma dalalee ngor ak diine yi ngor laay jël waaw nga xam ne ku amul ngor ku ne doo mën am diine kenn ku ne nag kon euh, soo sañoon mu yaral la sa doom def ci moom li ci war a def lépp loolu lañ bëggoon ci loolu la loolu la kilifa yëpp bëggoon loolu nag lu jafe la waaw